waxuma ko nag yëkkati est-ce que mhm. est-ce que ont fait les bons choix dans euh, par exemple pour le transport dans les ministères concernés. Mhm. Mhm. est-ce que en réalité El Malik Ndiaye est véritablement un le ministre approprié bu fekkoon dañ doon def dëgg dëgg dëgg euh, nu mu tudd. appel appel appel à candidature ah fayee nag bu ñu defee appel à candidature ñom ñep kenn du ci nek waaw légui légui légui légui ci yenn ah ministère yi nga xam ne dafa am waaw dafa ma ay urgence mm-hmm. dama am benn compétence. ah yow rek macha allah. mais mais mais yow le cerveau nag. waaw c'est un cerveau caché. voilà c'est ça allez-y. waaw léegi est ce que est ce que loolu. est ce que est ce que loolu parce que. Eh, waxee si micro bi. parce que parce que ah. man man si sama mm-hmm. xalaat nii. Mm-hmm. Euh, euh, gars yi euh, dañ tële. te télé bi du dara lu dul effectivement quand vous avez des gens qui n'ont jamais pratiqué le gouvernement qui n'ont jamais justement qui n'ont pas de de de, collaborateurs yi nga capables ne euh, euh, capable les bons réflexes. Mm. et puis aller au plus vite. Mm. pour nous régler régler euh, problème sénégalais en mm. général mais surtout transport bini. Mm-hmm. quand on arrive au pouvoir da moi je pense que ni da nga surtout que vous avez eu 10 ans pour faire mm-hmm. il y a eu vraiment je ne peux pas m'empêcher de revenir sur solution. parce que man. Hmm. mais oui mais ça non c'est est que bonne solution rek. Hmm. ba taxaw wo Sénégal yépp ñëpp taxaw il faut ñëw taxaw ñu lay interview ngay def ce show et wax wax wax. yaa ngi dégg nga né am nga projet nga né lér na ci sen bo bo la ñëwee rek di ngeen ñëw déroulé. mais xam nga ni élection élection c'est au mois de février. Hmm. après tabaski dina am. corité dina am après tabaski lay am tabaski amé après Tamkharit, il faut il va y avoir magal Gamoubi, euh, ainsi de suite Il y cérémonie une cérémonie qui relève mais am ci assurer qui relève de notre euh, euh, su une mm. culture Wa léegi man yow boo ñëwee normalement nous bi voir ñëw waroon xam par exemple ci situation transport mais exactement lan nous fi mm-hmm. parce que solution nga wax donc l'air na ci sa donc boo tout de suite xam nga branche yi nga bon pour le cas du transport branche yi nga wara a tout de suite et immédiatement xam nga fay yi fan la nek da ngay ñew rek dindi rek fat mm-hmm. parce que da nga mm-hmm. mais ça se voit que en réalité ils ils n'avaient pas de solution mm-hmm. et qu'ils faisaient tout mais en même temps ça man personnellement man lolu bêtement, parce que damay gis ci une communication fiñ on doon accentuer ñom fiñ doon moy nu ñuy def rek pour atteindre yenn population yi par rapport ak ñom sen non seulement sen état d'esprit mais sen état de vie mm-hmm. parce que fekk na ni gars sonn sonn bi nga xam nek ci ay situation yu metti yo xam de nga fiñu laal rek fofu la mëna baxé parce que ñom population bi fofu lañu tollu mm-hmm. mais par contre moment bobu bo doon wax lenen dudul lolu day naan yow do nit dañuy ànd ak humeur population et ça ce n'est pas bien des fois mm-hmm. même ci bir lolu sax war nga leen mën wax deug nga wax gars yi exactement situation man man musuma gis ñom ñep kenn wax ci situation transport bi ci affaire wu euh, li ñu doon wax sank dans les de première nécessité mosuñu mm-hmm. moo mosuñu moo wax lan lañuy trouver comme solution mm-hmm. ci budget Sénégal bi ñu wax ne xaalis soxla ñu bitim réew damay doon laaj fan ngeen di jëlee xaalis bi mm-hmm. parce que man xamuma ko te amna naa quand même xam donc vous wéré wéré wëree gisuma dama né xagn na amna lo loo xam de man daf ma daf ma réer daf ma réer wala sax dama ka xam tout simplement parce que dama limité et que nous xagn na amnañ ko motax ma leen ko doon mais il ah ne le trouvait pas il ne le trouvait pas donc forcément ça pose un problème légui nak li ni problème yi bu mu leen bu mu leen bett ci yenen bi transport mais après il y aura d'autres problèmes hum. éducation bi la rentrée scolaire hum. d'un ngeen xam étudiants yi dañuy gëna a le ministre de l'enseignement supérieur il va avoir beaucoup de problèmes ak rentrée universitaire prochaine non bu parce que ñom parce que parce que wuñu mais du seen en partie mais benen côté bi une faute la parce que dafa am yo xam ñom ñoom waxuñu ko woon Sénégal dañ leen won ni ñom bu ñu ñëwé ça va passer comme dans du beurre comme une lettre à la poste et là on se rend compte qu'effectivement ils ont menti maintenant que vous avez menti il va falloir que vous assumiez vos mensonges Doudou non koy assumer nak moy des fois do communiquer ci ay détails comme par exemple transforme gars yi du ñu mës a communiquer duñ ci mës a wax détails duñ ci mën a dugg eurobond duñ ci duñ duñ def euh, une communication dessus etc. parce que duñ ko mën parce que buñu waxé ils vont se contredire euh, affaire pétrole bi duñ ci duñ ci duñ ci communiquer parce que wala looy wax la ngay wax si ITE ITIE loolu si ci wax mm. yooyu yëpp faisant transport bi problème yi amoon ñu doon wax ni dañuy wàññi euh, kiiwu transport bi mm. tudd loolu ah, loolu rek ma yeggalee kii bi mm-hmm. transport guddi bi mm-hmm. mais da ngeen ko doon critiquer mm-hmm. waaye léegi qu'est-ce que vous faites pour ça par exemple est-ce que d'ailleurs ngeen on war a delloo mais boo leen ko delloo il faut une jox ay explication euh, surcharge yi gars yi doon def yooyu yep faisant nan la pour contrôler les gars ba ken dotul fixer prix bi par force est-ce que Dakar Dem Dikk daf ci waron dugg par exemple pour mener atténuer la concurrence par exemple bu auto état bi bu ñu waxoon Dakar Dem Dikk yooyu ñii dañuy dem foot ñii dem ñi dem ñi dem Tivaouane ñi dem euh, Ourossogui ñi dem xaw ma fu la neex mm. ñi dem ba Casamance mais xañ peut-être ñooñu bu euh, concurrent yi le privé dañu ragal dinañu wañi prix ah. parce que sinon ken len fay bàyyi Dakar Dem Dikk lu tax ko def 10 000 francs mm. lu tax ko def 10 000 francs

veut on, pourrait en parler euh, la, euh, prochaine fois. Mais je... non mais vraiment je gars quoi sais pas mais. des propositions alors que nous, on en a euh, voilà comme je vous parle des sociétés de transit. yaa nga xam yoo xam ne ay ay ay ay ñu tere li lekk ci kaw parce loolu pare wuñ ko pour oto boobu. Euh, parce que dina wàññi accident yaa ngi kenn ak pneu yi éclaté.